ነው سويتم جسدكم سيروا بالرسي العافية بالله لا المواهب المواهب أحسن ترويجم شيخ القوم شيخ الحاج محمد المنصور أحسن ترويجم سصدق سيادة قالنا يلا أبيانتي ak Cheikh rawatina nag seen sëriñ yu bopp Birame Ngane nee sama papa Hadj Mouhamadou Mansour yabal la ci moom muy sunu maam Saïd Nourou Tall ak sa barke waajur di bu dëddu àdduna topp maanaam toppin woo xam ni gisuma ku ko ci dàq ci sunu biir kër muy Cheikh Alhaji Mouhamadou ñëpp mu ngi lay ziar si nee nag si léegi nag kàddu gaa ngi ci sa nga dokkeel kilifa yi wax ak taalibe yi wax ak soppe yi ñun gannaaw loola bu waxee loolu wax na ñun ñëpp ñu bokk àndal taala suñu loxo nga ala sayyidina muhammadin wa sallim oustaz sëñ bi ne xanaa moom daal xanaa jaar rek fi Cheikh Al ne sant yàlla julli ci yonent yàlla sallallahu aleyhi wa sallam nuyu na mbokki jullit yi nuyu itam nag julliti àdduna bi yëpp ngir yàlla nee bu nu jotiwul ca ñoom ñooñee fa ñu ne yàlla lañ fa nekkal lu ñu am yàlla mën na leen koo jotee kon ñu leen dugal ci biir nuyoo boobu ziyaar nag ñëpp siyaare ko moom mii Cheikh Hadj Malick Sy moom nuyu ko ndokkee ko dugal ci nag njaboot yi yëpp nuyu sunu mag ji fi ne di Serigne Abdoul Aziz Al Khalifa nuyu kilifa yi àddina bi ñi nga xam ne ñoo ñoo fi toogal diine doore ko ca Louga ci Thierno Bachir Tall Thierno Madani Tall teg ca Madina Gounass teg ci Ndiassane gii ñu dëkkal ci Touba Ceg ca Kaolack Ñaseen lew na Kaolack lew na Ñaseen Medina Baay moom daal fu kilifa diine ne Sëriñ Bakar ne bàyyi mu kenn laayeen ñëpp ne ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ñaam ñooñu nga xam ñoom la yàlla dogal ñu toog ci sunu kanam ci diine gi yàlla na leen fi yàlla sax ne yàlla yàggal leen te may leen wér ne yàlla bu yaakaar tas ci ñoom yàlla bu seen yaakaar tas ci kenn yàlla bu seen yaakaar tas ca yàlla mooy yaakaar yi ba ya tas ci moom ndax kat yàlla lu mu bëgg a def rek moom yàlla def ko moom yàlla dépendre ci kenn waaye nag kenn mënu la def moom yàlla mu gën ca looloo tax nit ñi xaw la Ndaytaano ne Cheikh El Hadj Malick si Maodo Sidi Bakar lay bokk na lépp ne lépp nga bokk déggee mooy jotaay ba nga xam ni foo ko toogee wax la nga xam ni yow moom nga war a wax nga lépp ba beneen jotaay ama fa tabaraka Allah ñu amee leen nag cant ne fi man yaa na Cheikh Seydi Hadji Malick na fi léegi yal naa mu boole ñu ma ko soole ñu ànd ba mënatuñoo tàqali ko waaye kat ànd bi du ànd kii moo nekk ci kaw kii nekk ci suuf ñun daal ñun ñëpp nañ leen la koo ànd di taalibe di njaboot nee moom ni suñu Bakar ne di wax ni Cheikh Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu ndax boo ndax kenn yilif na ko waaye nee bu ko waxee du ci am tontu waaye nee moom Cheikh Seydi Hadji Malick di ko mu agsi fii mu agsi muy sharia bu sell sunna bu sell muy pas-pas bu dëgër dëgmal yàlla geesuwul kenn nëtuwul jubal yàlla rek uti bare inna صراط مستقيما ñoom ñooñee ñu dundal moom ba seen dem seen dem ñu bàyyi ko naan dem muy nag loo xam ni ku yàlla dimbali yaa ko mën a attan waaye nit ak boppam mënu koo attan waaye itam yëfu yàlla bu koy yaatu yemal fa te yàlla nangu ni moo ko moom yem nga du laal suuf waaye daal bul yaafus rek bul yaafus yow daal bul yaafus rek yow jàppal ni mënoo yem day laa yem jàppal ni ki la yem moo la téeñal ci njaboot kii ne loolu daal bokk ci njaboot gi jar na di sant yàlla ba dee ne njaboot Cheikh Sidi Hadj Malick bokk ci taxul ñuy wax ak ko taxul ñuy wax maanaam nit ñëpp teg seen bët àddina waxuma yàlla xaw ma daal suñu bokk la ca yàlla waaye ñëpp waaye fi Cheikh Sidi Hadj Malick nit ñi nangul ko da ngay jàpp rek yow yàlla moo ko jëkk a nangul mën nga cee jàpp rafet njort nag yàllaa ko nangul xar-xaru jullit yi xool xaar xool Cheikh Sidi Hadj Malick àndul woon moom ak ku ay nit ñaay la àndaloon ñu xam seen bopp xam li ñu bëgg xam li leen yëkkati bëgg yàlla xam nañu koy wute ci ko